benn solution laa gis muy yow nga dox ko miss moom ngay wax na ñëw ci biir kër gi fréquent fii di fi ñëw Junior di ko gis ndax mbëggeel miinante kese la. miss amuloo ay kayitu dof yow. j'en ai pas besoin pourquoi. parce que tu es de toi. musuloo ma tooñ mais tey tooñ nga ma toos bëgguma dara lu la naqar yow it waroo bëgg dara lu ma metti. ba ma génnee foofu laa ñàkk baay bu ma juróon du ma génne xaaju guddi. waaye maa ngi lay xamal leen doom sa doomu géño non non non non non non écoute écoute man man awma jot boobu pour euh, conteneur jóge foofu dem ba Boston lii di ñëw ay dafa dafay yàgg ci man. man j'ai un parent bu nekk Canada waaw Mohamed Gaye groupe S3 yi Africa Cargo moom day dugal ay conteneur dinaa la mettre en rapport ak moom mu dugal conteneur bi foofu Canada. voilà je vais je vais t'envoyer ces comme ça ngeen déggante yéen ñaar te bu ñu jógee parce que dama bëgg bu conteneur bi egsee nga xoolal ma billet miss bi waaw waaw moom dafay ñëw Canada euh, euh, vacances mook yaayam waaw dañuy ñëw vacances ak euh, moom surtout moom sax mu ñëw voilà nga xoolal ma affaire billet mais conteneur bi je vais te en rapport avec Mohamed Gaye ok merci mon frère maa ngi lay envoyé ses coordonnées merci Daddy Gaye li may wax dama bëgg nga woo sa waa kër yëpp ñu dégg ko dégg naa ni sama nijaay dafay ñëw pour yëgal la ni mercredi damay soutenir sama mémoire dama la bëgg xamal ne man soxlawuma la fa ba may jàng primaire ba collège musoo xam ban école laay jàngee musoo xam ban classe laay def musoo maa jëndal bic musoo maa jëndal kaye gute ci élèves yi laa koy dégg ma ànd ak sama ngor nag di jàng te yàlla rek tax ba toll fii ma toll kon su may soutenir sama mémoire du yow yaa tax di xamal ne nag bëgguma la faa gis bëgguma laa gis ci bis boobu est-ce que yaa ngi may dégg. merde merde sa ndey nii la sëyee moo di ba dof dof nga merde man duma baay bàyyi bu ñuy fekk naan man baakalaa kenn du ma jiitu sama mbar bu fekkee da nga am réewande booy def wala booy jaay delloo ko fi mu jóge woon man faalewu la. faalewuma sa ndey faalewuma le dégg nga li ma lay wax sa sutee ak loo mën a def allez bu faire foutre dégg la wax quoi tu te permets ah bon yëg sa bopp yow yow damaa faale sa jàng yow dama faale yow yaay kan boo amee tuppe bu toll ni ñëw fekk ma ma toog nga naan danga may sarli lu di jaay sama tur bu ma amee lu ma amuloon lu may set je vais te casser la gueule dootoo ko def. si jamais Daddy Gueye si jamais tu lèves la main sur moi dootoo ko defati. Eh. méfie-toi loo l'eau qui dort. Eh. gis nga gaynde gi ne ci yow mu ngi ci man. ah bon soxlawu ma la fa. te xam nga lan moo tax may soutenir sama mémoire pour ñu mel ne man tañu violé leen. Hmm. kon xam nga ne amoo fa place bëgguma la faa gis. ça <laughs> fait le vraiment je suis content sur ce comme ça ñun ñi xam ci tu es quel type de femme effrontée effronte que tu es yow mal élevé idiote méfie-toi de l'auditeur Je m'en fous de l'eau qui dort. Ma a des limites. Je m'en fous. OK. Ce jour-là. D'accord. Tout le le saura. OK. OK. dinaa fa jiitu. ba boobu dinga ma fa fekk. yow yow xam nga ne doo tekki yow. doo tekki. tekki newul ci yow. ata sama tekki nekkul ci yow. Aliou. boo sañoon dee naa mu yàgg. soor dama mel. te di ngay dama tous wala. soor. que ça soit la dernière fois. wuyu sa ndey wuyu sa ndey moomu ci puus puus. dinaa ko wuyu raam. dama juddoo ma tey maa ngi koy wuyu. Aliou moom laa xam. ata moom laa xam. ata hors de ma vue. Bye. Modibo Modibo Modibo baal ma def lu metti li ñu dëkk ci kër yëpp musuma xoolee bët bu ñaaw Modibo nii ma la fekkee nii xaru sax moom moo ma ko gënal lii def sama loxo mi ngi ci man la te dañ maa tooñ tooñ la moo di bu sama baalu ak mer maa li ko dal soo ma jéggalul man mii dinaa bokk ci li lépp lu ko dal ci lu bon soo ma jégalu rek man mi ca laa jëm maa jël liggéey dem ca alweer suul ko ci bopp néew xaw xaw xaw xaw ma ni woon lii lay jur ma yónni ma dem yàq nañ sama àdduna yàqal baal ma. la préhistoire en Afrique le néopolitique et politique. du cœur, les regret. Le regret. si longue, si noire. Que ce soit la journée, il se passe toujours une heure où enfin le soleil va se coucher. Samori Moriba! Moriba. Samori Moriba! Oh les gars, venez! Oh les gars, venez! Samori baal ma baal ma. ale gabane. ko wax yëpp ak yow li nga ko wax wala yow da ko waxul dara. lu say def. war na ànd ak Modibo ci digg dëkk bi di doxantu. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. na def maa ngi nii. yaa ngi ci jàmm sam alhamdulilah. Euh, junior la borom kër gi laa soxla woon. avec tout merci beaucoup ci ni nga teel a ñëw fii ci kër gi yow junior. mooy man la. mooy rër rër rër mais grand championnat bi ngay football moo am doole. championnat bi fii dafa faible xanaa 4 4 ngay ñëwee. laal yàlla. yow yaa koy doxaan lu ma neex la parce que sama xarit la te yow la bëgg mais yaa ngi toj kër gi man maay chauffeur bi maa nekk fii maay dawalal maire bi ak paa bi d'accord leen daal laa bëgg takkal laal yaa yóbbu ma sa kër ma lay dawalal j'arrive. Merci ma nga def. maa ngi sant yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah Guèye. yow xamee de. waaw effectivement ndax maa fi ñëwoon ay jëmm jamono doon seet ci sa doom Laalia nga génnewal ma kër dellusiwaat fii ngir waxtaan ak yow su la neexee nga génn waat ma ndax waxi Laalia laa lay wax. papa man xol laa yore yoruma xeer te xol dafay bëgg dafay bañ bii nag yàlla daf ko nattoo mu bëgg sa doom Laliya mu nekk nag mbëggeel gu metti ñu koy dund difficilement ndax sama yaay bëggul lu tax sama yaay bëggul tout simplement parce que laliya faqir la laliya pauvre la amul te man alhamdulilah rabbi alamin macha allah bokk naa ci famille bu aisée c'est pas une raison d'autant plus que laliya bu nekkoon fa mu war a nekk bokkul ci famille bu pauvre ndax yaay baayam laajte naa la xool naa xam naa ni alhamdulilah rabbi alamin yaa ngi sant suñu borom sama avenir nag ak sama bonheur dafa nekk tey entre vos tey ngir ma am soxna ci sa loxo la nekk ma lay ñaan bedd gi nga bedd sa njaboot jooju muy Laliya muy Modi Bodi magam ak seen yaay yi tey boo leen récupéré teg leen fu fu nga leen war a teg teg leen placeu doom ñu teg la placeu baay sama yaay dina xam ni ay la yéwén Laliya mi famille bu baax la bokk famille bu am alal lan bokk ma ñëw nag ngir ñaan la loolu ndax bëgg naa am soxna toll naa ci jot na bëgg naa am famille am ay doom yokk xeetu Seydina Muhammad loolu tey ci yow la nekk lii rek ma fi andi woon. très bien man euh, je t'admire bien vraiment parce que selon ni ngay euh, ni ngay argumenter. que ku la gis xam ni macha allah xale bu xale bu intelligent nga macha allah. merci mais man du ni juruma la rek dama lay bëggal lu bon sa yaay elle la raison elle n'a pas tort je ne parle par rapport ak am-am bi. du loolu mooy question bi du loolu mooy mbir mi tooguma ak sa yaay musuma gis sa yaay mais xam naa ni daf la wax loolu pour te décourager mais du am am bi jabar soxna yi ak jigéen yi ñoom ñooy kenn àdduna ñoom ñoo la mën a defar ñoom ñoo la mën a yàq tu es macha allah tu as l'avenir devant toi Laliya munuma la toogal fii tey li la wax naqaral gu naqaral sama xool moom ndeyam ak Modibo tu as vu Modibo fu di wër di rey man di ma xoj di ma toroxal ñoom seen ndey lalya elle fait la même chose di dem ci mbedd mi di ma toroxal ni day jaay orange malgré sax jaay ak yëpp liggéey la comme ñun ni ñu yore suñu liggéey mais par rapport ak man bàyyi kër gi génn xool sama ñi nga xam ne man samay partenaire lañu ñu damay liggéey ak ñoom ñuy dem seen kër yi naan dafay wut ay mbindaan di di di di di du n'importe quoi va chercher ailleurs boo dëgëree bopp nag ba dugg ci laliyaa ah bul ni kenn waxu la ko woon donc li ma doon wut si daal mënuma ko am bu ma la nee mënoo ko am dama manqué manquer de respect mais je la le déconseille demal nga réfléchir bu baax. la vie elle est longue. ah loolu boo ko xoolee da nga ko liir ci ay bëtam donc regret bi nga may wax damay ragal ëllëg mu jóge ci yow merci beaucoup. fils bëgguma suñu rapport ma ak yow yàqu. bàyyil xel yow it ci li ma la wax góor nga di ko xamal ni ko sa doom dafay bëgg soutenir mémoire am mais xam naa ni naqari na ko trop trop trop trop trop mais entre parenthèse man euh, Soda dama xamul yow genre nit ñoo ne ay géey nan nga mën a sëy ñoom ba ci am ay ñaari doom man je me pose la question may wax mu naan ma lal euh, Lalia xaw ma day soutenir mémoire am xaw ma thèse am mais dara la dul am nan ma aw ma jot sama doom ji laa war a ànd ak yaayam ñu dem doxantu ji je ne sais pas mais je te chose gis nga Soda Gueye xam na ma bu baax a baax. kay xam na kan mooy baron dégg na li ma ko wax moom gis nga bu ma moytuwul bomb bi dina tàq ci kawam xaw ma ndax dégg na ma xaw ma ndax déggu ma waaye nee naa ko doom sa doomu geño eh bul dugg foofu doom sa doomu geño du sa domaine bul fa dugg nga baal ma nag yaay sama mag yaay sama kilifa waaye nit day lijjanti lu yoonam nekk kilifa yaa ngi toog maa ngi jéggalu nag ci toogaay bu yàgg bi ak ci yëpp xam nga góor moom du xam kër gi góor du xam kër jigéen ñi daal ñooy xam fi bagaas yi nekk dukki dukki naa ba sonn sax pour indi la loo naan ak yooyu soxna si dafa feebar dem hôpital eh, sama doom bi yóbbu woon ko waaw ah, dafa faju ji daal sama doom ji amoon demoon assister ko eh, wax naa ko sax bu ñuy ñëw wax naa sama doom bi buy ñëw mu jëndaale miche yi ak ay yëpp ñu ñu lekkandoo en famille mais maa ngi jégalu bu baax maa nga maa ngi jégalu kontaan naa ci ñëw bi jërëjëf jërëjëf Guèye hmm. xam nga man fii lekk indiwuma fi yàlla wërsëgal na ma lu ma dépensé wu alhamdulilah. Guèye mag du fen li ma la yónnee pour nga jëlin ma suma libération jamaa centre Afrique lan moo la tere woon dem nga ni saaw mu jël poson def ko ci ñam bi nga lekk ko sa biir di metti bëgg laa yóbbu àllaaxira nga jotag coog ñoom ba génn leen kër gi moo la teree dem c'est pas vrai gis nga sa aw boobu nga génn kër gi ku jullitee ngoog ku gëm boppam a ngoog ku gëm yàlla a ngoog teg naa ko bët sama saak bi nga xam ne sama document yi ma ëppal importance moo ci nekk suma permis de conduire suma portable bi may waxee sumay client lépp mi ngi woon ci biir moom laa doon jotee ak suma benn client teg ko ci kabo bi fàtte ko fa doomam for ko jox ko ko mu def annonce bi ma dem fa mu delloo ma saat bi kuy posane nit du delloo alal jooju c'est pas vrai. dëgg la dëgg dëgg la poson la ma jox ma lekk liggéey rek bu fii teg naa ko ci yoon kon lu bokkul ci liggéey bi loo xam ne sama famille la conserné mën nga ci bañ a mer ngéeg sax sama famille sa famille la waaye bu ñu réeroo ci loolu yow maak yow ca Maroc si sa famille maak yow sa dubaay ci naar yi nga présenté ma ku ne yóbbu ma fu ne centre Afrique fu màngaan bul doxalee noonu delloo si sa xel ci nit laay liggéey damaa xam la personne man weesu naa fu ma sax góor di naxe walla jigéen walla muy daw ci sama xel ndegem posen baa dul dëgg xoj boobu du dëgg c'est pas vrai du robinet bi nga doon rootee maa ko yor à partir d'aujourd'hui dinaa ko tëj ma xamal la loolu Senghor Senghor Senghor xam nga yaa joojoog maa joojo xam nga yaa joojoog maa joojo yaa joojoog maa joojo départ na ñi ngi ñëw de yow xam nga yaa joojoog maa joojo waaw ñooñu bu ñëwee saa yi àdduna bi day tukki dégg naa de départ nañ yee naa leen départ nañ Brésil fan ñu ngi ñëw de ci coupe du monde boobu Don Santos Pelé Mario Kempes xam nga Mario Kempes xam naa ko Mario Kempes kan mooy Mario Kempes ci jour la woon Argentine la doon football Argentine moo jëloon coupe du monde Argentine moo ko foqati woon moo ko foqati woon Michel Vautrou defe naa ne mu doon góorul baax mm, mm, mm, arbitre la woon kooku ah, yow de xam naa ni bu jom doon jaay dinaa la ci jëndal munoo bàyyi kër gi ngir yàlla kii ma toogal nii jamono ji ku def ci moom ñaar fukki junni dina wér waaye liñ koy bàyyi muy gën a dem nii deux millions sax du ko faj tee ngaa bàyyi ma jël ko en charge ñu jéem a xool loxo bu ko def lii ban loxo moo ko mën a moo gën lii nga may wax nii c'est pas important loxo bi ko def nii buy dañit du doon sa xaalis nga ciy def sa xaalis tey ko pour sa bopp junior àddina xaalis jëndu ko est-ce que yaa ni dégg te nga ñibbi te bàyyi ma. du ma mën a demee noonu. et il est temps que tu m'écoutes. encore il est temps que tu m'écoutes. Lala dafa tooy il est temps tu arrêtes de me parler toujours xaalis boo kan moo la fi woon xaalis. doy na Lala doomu góor laa nag après tout arrête. doy na toujours xaalis laa yaa ban jour laa la mës a jaay xaalis dignité ba kañ rëy ba kañ yow mën nga maa jaay rëy ba mu saf ba man en toute sincérité lan nga ma mën a jaay rek ba mu saf ba defuma lu dul andi sama ndëppal je le fais pas pour toi je le fais pas pour ta mère je le fais pour Modibo parce que au moins Modibo dafa maa bëgg wala nga wax ma boog lan mooy sa problème doy na danga may dóor kaay yow lu ñu wax nga ne xaalis. jamais assez. lu ñu wax nga ne xaalis yow de xam naa ne tiital naa la bis boo amul xaalis foo jëm. yow yaa may wax waxi xaalis yow yaa may jaay rëy fan nga ko teg. da koo wax léegi sa biir wax nga ne man mënu ma laa jaay dara mu saf la parce que gore woo doo nit ndax boo doon nit yow mën la bàyyi ma wala suñu kër bul fi ñëw ñëwati dootoo fi tegati sa tànk bu mënu ba bu feebaree nga ne xaalis man sama yére nga ne xaalis barki démb dégg naa sama yaay di la jox sombi bi nga naan ndax li dessert la mooy suñu añ ñun di suñu reer di suñu ndékki nit moom loolu la am bokkuñoo ak yow mi nga xamante ne nag yaa ngi ci yenn nag yi ñu lay tegal ñoñal ay ginaar heure bu la neexee sa bon ci sa service xam nga lan la ñun duñu yow te doo ñun àndal ak ñi nga war a àndal ñun ñu war a àndal ñi ñu war a àndal junior dafa doy dafa doy nag j'en ai marre junior xam nga lan laa bëgg nga bàyyi ma tout tranquillement xanaa yow doo dégg te sama biir nekk bi yaay bi xam naa ne doo fi dugg Granada. ku la xool xam ni temps guerre ba nga juddu bu dul quatorze dix-huit di trente-neuf quarante ndax yow jàmm buggoo ci dara dara dara dara dara yow ñu tëb coow nga ah. loolu fii. xanaa balaa ngay wax nga laaj ma kan ngay seet. duma la ko laaj. man nduru naa la ku juddu temps guerre. waaw parce que ñi tëb ñi tëb nga ah. ndax dégg nga loolu. junior nekku fii yow nag yaa ngi may bëggal moo tax nga bëgg maa ñàkkal fayda man seetuma junior yow moom laay seet man mi waaw yëg jom ji nga am fulla fayda ak fit ba ñëw sunu biir kër ne sama yaay man naa bàyyi junior moom laa ñëw pour delloo la sa weccet ne la nga wax junior na ma bàyyi parce que sax dama amul temps te nag mosuma koo bëgg mu ngi jàppante sunu kër guddeeg bëccëg di ma perturber te dama war a soutenir sama mémoire te sax man j'ai d'autres chats à que di topp ci ay junior waxoon na ma bàyyi yow dof dof nga ma jàppe walla am dangaa defa ni man nàmp ma hmm? man ngeen di tëj di ko tuuti ngeen ci ah bàyyi ma dem ci sa yaay wax comme quoi que bàyyante nañ di def li ngeen di def ci suuf yow bi nga koy yéemte ceeb kecc tax démb maa ngi fii di ko dégg mu lay woo téléphone naan la na am xooñ ak na xonqat ba tey mi ngi sama fii yaa ngi bëgg a doon xale bu ndaw ndax nag boo juree junior mu toog sa wet di la nax nga nangu ko man loolu xamatuma ci dara li nga bëggoon am na tàqale maag junior bàyyante nañ dégganteetuñu waxatuñu téléphone gisanteetuñu ndax yaa ngi may dégg bu baax alhamdulilahi rabbil alamin naa dellu sant yàlla dolli ko ci li ma ko santoon nit ku baax day am jom am fulla xam fi mu war a teg tànkam gis nga cuuj tey xem nii nga def bu la ci jara boo duggee ci nit ndeyam bëggul danga war a toog man ma ee eh, man maa leen dëddale maa dem ci sëriñ mu jox ma li may jox ma wut sama karawu muus ak sama karawu xaj boyal ba mu boy ma def ci andu bi taal ba mu jëfa fëfi te gis nga ni ma ko defee ba mu balaa noonu laay defaat noot sama doom ba mu toog fii ci biir kër gi takk ko ci tànku taabal ji boo tëddee na nga nelaw bu baax ak xel mu dal waaye bul fàtte mukk ne yàlla am na man yaa ma gën a eh taxawal doo taxaw de téye fi nga téye rek nga dëgg ndax xam yaa ko mën asta man aleykum salaam. ah Mangane. waaw Mangane. na ngeen yéen a. bisimilah. jàmm rek jàmm rek. ñu waa kër gi. ñu ngi fa. alhamdulilah. nga xale yi. ñu sant bu baax. gën na ñëw gisee. waaw maa ngi fi Mangane. déggante. yéen a ci jàmm bu baax. sant. te yaram bi maa mi ngi am tam. maa ngi seet macha allah. alhamdulilah. jàmm rek alhamdulilah. ñëw bi day xanaa li olof di wax rek dige bor la. bi ma fiy jógee maa leen ne woon dinaa fi dellu si. looloo waral ma dellusi si fi di xamal yëpp nii dem naa kër Dadi hmm? waaw dem naa fa ndax war faa dem ndax la liggéey daf maa tooñ li ma wax ak li am dara ci boo seetloo sunu biir wax keroog. danaa la xam naa da Gueye yem mais da Gueye sama employé la lépp lu mu yor lu muy tiitaro lépp sama loxo bii la maa ko jox man maa ko jox lu mu la wax ni jaman deer ba mu ñëwee pour dugg ci mbirum jaman caution ba mu indi matul maa jël sama xaalis loolu ci lu mat dem dugal ko mu am carte ma jox ko def ko sama employé looloo waral ma dem fa jigéen nag ku ko war balaa yàgg nga gis ko mu dal sa kaw te lu dal ci kawam dal sama kow man mi muy liggéeyam moo tax bis ni tey robinet ba mu daan roote tëj naa ko ràpp li des nag la la waxoon keroog man Abdou Karim Mangane duma dox ci caaxaan kilifa la moo tax ma bëgg ñu dox ci maag yow ci tànki kilifa ma jël def la sama soxna teg la sama wet ñu de dégg naa sa wax daa liggéey de yàlla def ñu boole ba ñu dee ay xale yu tuuti mu jël ma ma jaar ak moom nag fu nekk gis nga caution boobu ngay wax hmm. man mii maa ko ko jox waaw ndax man tabarkaal la sama papa daf ma teel a may kër ma boole sama kër googu ak samay takkaay lu ma amoon ci oor jaay ko dajale jox ko ko pour mu liggéey yàlla boole ñu nag ma am juróom moom ñaari doom mu xëy doxalee ni mu doxalee sama diggante ak moom gannaaw yàlla sama toogaay bii ma toog tey ci moom la jóge ndax moo ma dóor ndax ñaareelam dóor ma ba ma toog benn place ba mu yàq sama ndigg waaye nag màngaan loolu yépp jéggal naa ko baal naa ko ci xol bu sedd guy moom moo may def lu metti waaye man duma ko ko def yéenewu ma ko dara lu bon ndax damaa jur ay doomam bu doon sama sago nag robine yooyu nga tëj nga tijj ko ndax damay bañ ëllëg lu ko dal ñu ne ci Soda Ndiaye la jóge bëgguma loolu beneen bi sama digganteeg yow bi ngay wax màngaan man sama der rafet na ba pare macha allah te bëgguma dara lu ko gàkkal bëgguma dara lu ko tilimal ci muñ ak moytu rek laay dox maak sama njaboot tey jii su ma ànd yow nangu nga def ma soxna dina ñaaw ci gis-gis ak si dégg-dégg ndax dinañ nekk moom kat dafa tàggoog Daddy Gueye sëy ak xaritam loolu de ma ci jaaxal. nga ni ci sa biir wax yow ak Daddy Gueye depuis xale ngeen ànd. ba sëy. mës mhm. nga maa teg bët. ci xaritam kon du ma xaritam bu dul saag bii sa doom for jox la nga annoncé ma ñëw dooma xam loolu lépp ku ko def nit sëy ko moom war a xamee xaritam mm. sama employé la man Abdou Karim Mangal doxuma fu ñuy tilimale der damay fekk der bu tilim ma raxas ko ba mu set dimbali borom damaa bëgg nga gaaw xalaat woo ma jox ma tontu lu rafet. lu ma arrangé arrangé la merci beaucoup. Euh, sa feebar bi lu ñuy faj la walla. lu ñuy faj la waaye sama doole bariwul.